guy gi bu doon bu ñaa xuppaajam loolu théâtre la li nga wax sax moom mooy lan yow a ëppee doole ah, am nga combat de laa lay wax yi suivre Lutte TV point com ñu ngi leen nuyuwaat bu baax di leen ziare andi laat leen Maodo Maodo Malick Gris 2 ñu gëj ko gis gëj nañ ko gis mu def sortie gëj nañ ko gis mu bëre depuis combat ak Abdou Diouf ñu ñoo fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ne suba day am muy élection yi municipal ak coow yi nga xamante ne ñu ngi ko ciy dégg di ci dégg tamit Gris Bordeaux ñu ñëw fas yéene waxtaan ak yow rek comme ni ñu koy defee comme yow da ngay ay leçon de morale souvent comme ni ma koy oh. <laughs> ci mel nii dama lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yëpp imaam nga. imaam kay day joxe day xutba. maa ngi lay bu baax a baax di la ziar. waay ñu ngi lay fay Lamine di nuyu Sénégal yëpp. di sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sant sunu ñaari waajur di sant sunu sëriñ Seydi Aboubacar Sy radiyallahu anhu ak bépp kilifa diine rek bu nekk ci réew mi. comme ni ma ko waxee rek suba la ñuy def élection municipale yi yaakaar naa ne Sénégal ak Sénégal yëpp ñu ngi koy waajal gis nga élection yi tamit coow yi xamante ne jot na ci am ban message la ci Gris di lancé ak lan lay wax ñi nga xamante ne ñoom ñooy sénégalais pour suba ñu voté ci jàmm ak waaw comme d'habitude rek Sénégal moom benn boobu la kenn mun koo xar ñaar donte façon discours yu mel noonu sax déggatuñ ko quoi parce que léegi réew mi moom presque benn genre sabaru def la rek waaw réew la boo xamante ne instant bii nii moom xaw ma dañoo catu xaw ma lu mu demee mais réew la boo xamante ne jaxasoo na sur tous les niveaux côté yëpp boo seetee muy ci diine ci politique ci nekkin nii ci koñ yi léegi Sénégal daal xaw ma pauvreté la xaw ma natt bu ñu yàlla teg la mais amatul kenn koo xamante ne rek jox jox nga xor ma sa moroom boo seetee xew-xew bu xew ay xeer a koy tas ci diine bu xewee dangay gis ay mbir ay wax yu bokkul lépp lépp léegi c'est violent ci violence ci corps à corps violence ci waxin waxante lu bon xam nga saagante lu bëri loo xamante ne dafa garaawoon ci Sénégal léegi dara garaawatu ci loolu nag leçon la boo xamante ne ku ci nekk rek war nga xool sa bopp parce que kenn waru ko jiiñ kenn ku ci nekk rek boo téye sa bopp xam ne lii dëkk bi mi ngi tourné tourné mooy mi ngi jóge ci benn niveau di tourné ci benn niveau ak doole nag te gisuñu kilifa yu ci téye gisuñu ñi nga xamante ne sax dañ ciy jéem pour apaiser ko sax pour fexe sénégalais yi xaw a dalaat tuuti sax dañuy bokk ci leen les ennemis numéro un ci dëkk bi dañuy nekk nit yoo xamante ne ay personnes non grata lañuy doon fu ñu feeñee rek dalay gis critiques yi day bëri wax yu bon yi day bëri te xam nga te nag loolu nag euh, ñu ngi ñaan daal yàlla bi nga xamante ne moom moom àddunaam moom ay mbindeefam mu dimbali ñu rek ba sunu Sénégal bi conscience yëpp dellu siwaat xel yëpp dellu siwaat xool yëpp wàccaat ñu mën a dund dund ensemble comme d'habitude waaw parce que am na loo xamante ne tey yàlla suñu borom daf ñoo yàlla suñu borom daf ñoo sant pour ñu bennoo te yàlla lu mu la sant ci àdduna rek boo ko deful conséquences yi da koy gis te yàlla lu bëri bu koy digle wala mu koy tere ci alxuraan day ñëw benn yoon mais bennoo pour jullit yi nekk benn pour nit ñi nekk benn def ci insister xam nga yaa ayyuha alladina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha laallakum tuflihun muñ leen ngeen di muñalante ngeen jàppante te ragal yàlla xam nga waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu innama almuminuuna ixwa xam nga ànd leen nekk leen benn foo leen fekk ñun nag ñu ne loolu duñ ko def kii day jaar gauche kii day jaar droite kii day naan day yéene moroomam musiba kii yéene ko moom mais yàlla day génnee foofu loxoom xam nga moo tax tey réew mi ñi ngay gis yëpp comportement dong moo ñu teg li ñu doon mais tey waroon nañ am beneen doxalin bu ñuy doxali bu ñuy doxalee bu budul actuellement ni mu mel nii waaw. ñi nga xamante ni ñoom ñooy samp seen ndënd di dagaan baatu askan bi ci seen i discours parfois da nga gis ay discours yoo xamante ni du discours responsable est-ce que ñooñu lañu war a dénk tey suñuy gox wala ñooñu tey suba mu ñoom lañ war a dénk suñu réew. waaw comme comme d'habitude rek gis nga réew mi amul benn mbindeef boo xamante ne rek war nañ la jiiñ li xew tey ndax boo jiiñee dara nit ne waa ñii la wala waa côté bii la boo ko xoolee yow après si sa bopp si sa environnement bi la jege rek da ngay xam ne du ci kenn ci réew mi la ñëppay waxante lu bon amatul amatul fenn fooy laal tey ci réew mi foo xamante ne actuellement du waxante lu bon moo fi nekk ku bokk ak bokkul ak sa moroom xalaat rek boo sañoon mu dee tey Sénégal léegi néew sax Sénégal da daan gis nit kuy dox si caaxaan sax yàlla moom ko sax nga yëg ne Sénégal yëpp ñu ngi koy ñaanal yàlla ñu ngi koy ñu ngi koy mu am apaisement bu mu indi ci réew mi mais léegi Sénégal nit dee sax dañ lay continuer di la caw xam nga loolu nag beneen niveau la boo xamante ne yàlla moo ñu ko nattoo man ci sama jàpp parce que man mënuma ko jiiñ ne <coughs> ñi soxla réew mi la mënuma ko jiiñ parce que violence yi ci côté yëpp lay jugee ci côté yëpp lay jugee xam nga moo tax ñu ngi ñaan daal yàlla daal sàmm suñu réew bi xam nga ba pare dimbali ñu may ñu ay mag yu baax waaw ci wàllu politique bi parce que Sénégal bu njëkk ba am na lu mu xawoon mel quoi xam nga te léegi nag moom lu yàlla xam doy na. léegi doy na waar mhm. comme comme comme ci politique bi la ñuy des Gris Bordeaux ku ne xam na ni moom dañu woon day nekk euh, candidat la ci Médina bi affaire desee ay ay quelques mois mu def benn sortie dajale presse bi. ni loolu dootul mën a nekk ndax gis na koo xamante ni peut-être moo ko gën a mën a gérer Médina mu ne Médina rek moom moo ko ñor bi mu ne day nekk candidat est-ce que yow gëmoon nga ni Gris Bordeaux day nekk candidat ah bien sûr parce que moom Gris boo xamee boo xamee dëggantaan nekk ak moom di nga xamante ne adduna bu pare woon carrière am di nga ko dégg ci yeneen mbir parce que moom ay engagement xelam lu mu ko may lu mu gëm ne moom fii mën na fi indi dara bu fay dem du ci tàggu kenn kon ni mu duggee ci làmb neexul woon benn mbokkam mu dem ba am ci li ko yàlla may adduna tamit leneen moom lu bëtam feeñ rek mu gëm ne lii nii war naa fa dem def fa apporter yokk fa dara du ci tàggu kenn mais xam nga ne politique tey fi réew mi toll ak ni mu mel boo amoon waxuma la sax mbokk mais boo amoon xarit sax boo bëgg dëggantaan bu ciy jéem a dugg war nga ko wax ne ko lii moom sawaay bu ci dugg parce que Sénégal instant bi li Serigne Cheikh doon wax naan jamonoy noppi day ñëw jamonoy làqatu day ñëw Sénégal léegi làqatu sax lijjante euh, euh, génneewu la ci xam nga li ma la mais moom nag kii woom la quoi man gëmoon naa ne mën na nekk parce que moom noonu la mel waaw mais yow sa xalaat lan la ci woon yow bi nga ak sa xalaat est-ce que waxoon ko non bien sûr nee naa ko man ay politique yi moom sawaay nangam nangam parce que man maa ngi nii Gris Bordeaux foo ko gis da ma fay gis mais boo gisee Medina mënu ma fa sax teg sama tànk romb parce que instant yi affaire yi dafa sensible te ñoom it niñ ko jëlee wax dëgg fa yàlla wax dëgg fa yàlla kii na ma quoi bett na ma waaw parce que Medina ci wàllum niveau wàllum wàllum comportement dañ ko doon bakkoo fépp booy Medina la booy Medina la mais buñ demee kan mooy baam Bamba Fall kan mooy Cheikh Ba ah ay nit lañu du duñu ay personnalité yoo xamante ne ñoo gën rëy ci Sénégal Sénégal dafa amoon ay Lamine Diack Médina xam nga amoon ay maire Aram Diène amoon ay maire Ahmed Diène tey muy Bamba Fall muy Cheikh Ba amul ñooñu ku leen toll ci wex ci ni ñu taxawoo Médina lépp doon rafet kon tey lan moo tax ay ñaari nit ñëw mu jaral léegi mbokk gi ñu bokkoon ñu sànq ko sunu baay yi doon ànd ak sunu yaay yi doon ànd lépp ñu fàtte ko comportement bi ñu amoon ci sport Médina di neex di xumb lépp ñu sànni ko fee ndax ñaari nit loolu pour lan dañoo xiif wala dañoo mar fii yàlla mooy dundal nit ku ne amul benn doomu aadama boo xamante ne rek mën nga dundal nit dañuy soob amul doomu aadama boo xamante ne amul loo bëgg te amoo ko adduna dangay topp ci mbébét mbébét mbébét ba keroog ngay dugg si suuf da ngay am loo bëgg te doo ko am mukk kon am na loo xamante ne jaay suñu ngor jaru ko ba ku nekk bëgg suruxal sa moroom ku ci nekk bëgg tilimal sa deru moroom loolu pour lan lan mooy Cheikh Ba lan mooy Bamba Fall fii lañ fekk Medina ñoom dañuy dem bàyyi waat ko fi par force kon léegi lan mooy problème bi. kon jeunesse su nañ conscient. mais jeunesse su Medina dañu mësoon conscient sax lan moo tax ñun ñuy am bi ay divergence ci ay affaires yoo xamante ne ci ay nit ay nit lan moo tax loolu man man politicien jaraluma sax laa la wax nii mere sax xaw mere sax doomu aadama waxuma laa nag di jël mbir di ko gaañee nit ñoom ay sunuy ay grand lañu yu baax am ay xalaat ñoom ci Medina ku si nekk boo ak sa morom position mais ku mu neex demal ci kii ku mu neexul demal ci kee xam nga mais ñu mel ni mujjee ko ku nekk di tamante sa moroom dëmm da ngay gis ay tête yoo xamante ne ci ci réseaux sociaux wala dara ñuy wax ak giri di ko wax wax yu ñaaw te mu leer na la yow kii ngay waxal lii ak sa aqulaay taalaa xam nga ni li ngay wax nii defu ko parce que yow Gris fi mu taxaw noonu di politique boo laamoon ndiggam li nga ne ndax kii mbër la wëñ doo ko ci fekk ñàkk fonk gàllaaj ak làmb bokk ne sax ci li ko indil problème ci làmb téere bëree koy booleeg moom nga ñëw di wax waxu xanaa moom ñàkk jàppee dara muy dara ak ñàkk di dund non violence moo tax Gris actuellement nii politique am mu jël position ba pare di dox moom dong man mii di rakam jombale naa loolu sama bopp dem di def ay musiba pour benn Cheikh Ba luy loolu loolu Macky Sall mii patron Cheikh Ba sax loolu da ko mën a defloo giri loolu bu ko giri defoon man maa koy njëkk bàyyi bu politicien taxoon Macky Sall mii ba ñuy xam giri boobu danga xam yow Macky Sall Cheikh Ba ba ñuy xam giri ci Medina da nga xam kuy Cheikh Ba Bamba Fall ba ñuy xam Gris Bordeaux ci Medina boobu dañoo xam kuy Bamba léegi lan moo war a tax ñu dem ba jamono ñëw ñu bëgg nañ kii ñii dañ koy jàpp di ko utiliser si nangam nangam loolu yëpp amul sens xam nga nañ leen ànd nekk benn fii kenn mënu fi lu yàlla moo yor lépp yàlla mooy defar lépp kenn gënu fi kenn mais am na si yoo xamante ne bu demee bay xew ci mbokk ci ay dëkkandoo ci ay xarit xam nga ay koñ grand yu booy yu war a respecter seen ay mag di leen jàll ngir politique ay mag yu war a yërëm seen ay rakk dimbali leen di leen fexeel ndax politique loolu luy loolu loolu kenn mënu ko comprendre. kenn mënu ko comprendre li waral wax ci peut-être am na ñoo xamante ne sax mën nañu seetaan li duñ comprendre fi ngay waxee mooy dañuy Gris Bordeaux ci affaire ay affaire xar ak yooyu noonu la doon rey xare dañ leen a jox sàngara genre yooyu noonu loolu lañ doon waaw wax yu ñaaw te loolu moom dafa dafa doy waar ko fii nii ci réew mi dangay ngay jékki rek nit def benn vidéo ne xoolal lii xoolal lii xoolal lii. ñi koy xool ñëpp ku xool gëm ku xool gëm. mais ku xam Gris Bordeaux ci làmb Gris Bordeaux ay anecdote wu làmb rejeté gàllaaju làmb li mu ko def ci àdduna ñi ko ñi ko jege xam ko buñ déggee ñu naan moo ray fee ay mbir pour dereet ak pour nangam nangam day da da ngay reetaan. parce que mooy seul mbër bu ne ga ga mystique 4 pour ci làmb wala 3. 2 pour loolu moo ko fi génne. Gris day toog si gis naa toog naa ba taay mu rejeté sëriñ ne ko lii du ma ko def toog naa ba taay Gris Bordeaux rejeté sëriñ. boo xamante ne nit da koy fay alal pour mu jàppale ko nga ñëw sant ko benn affaire mu ne ko lii du ma ko def baax na ba tàyyi loolu volontaire boppam la man moom xaw ma lu ko doomu aadama di waxal mais gëm yàlla gën boppam jàpp ne lu doomu aadama di mënul liggéeyal boppam munoo ko am loolu moom dafa nekk ci moom te moom nag jaraluma ma ñëw taxaw fii naan damay avocat yi amul benn mbindeef bu ma ko jaral parce que lu bokk ak bokk ak nit bàmmeel kenn du ko bokk benn nit jaraluma ko moo tax nañ nañ sérieux ñu ànd nekk benn xam ne Médina benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar Sénégal tamit même chose ñu bàyyi bañante beeg defante ay mbir loolu amul sens waaw parce que yàlla noppi na démb. Mhm. macha allah loolu am na solo yaakaar naa ne ci loolu rek la ñuy la ñuy la li nga xamante ne moom mooy xew-xew bi ngay wax sénégalais nga xamante ne ñoom ñoo war a bëri message bi nga xamante ne moom nga leen di lancé. waaw Médina ñun moom Médina la ñu am xam nga ñun fa la ñu juddoo wax dëgg fa yàlla tamit si làmb drapeau bi lañ yor bu ñu neexee ñun ak bu ñu naqaree bu neexee keneen ak bu ko naqaree ñun Médina rek lañu am xam nga li ma la moo tax nañu voté ci jàmm na gars yi dem sànni carte ba pare ñibbi seen kër xam ne ñooñu ñuy voteel ay nit lañu rek yu am ambition ci seen réew mais waruñu jaral benn doomu aadama di xoosal sa bopp wala di gaañal sa bopp loolu rek mën laa ci am lu may wax. waaw te ñun Medina tamit lañ am kuñ fi mënti yaakaar ba samp ko fi tamit boo awalewul yoon fi nga war a away yoon nit ñi tamit dañ lay dénoncé waat rek parce que fii kenn moo kenn moomu fi kenn. guy mhm. gi bu doon bëre. du puus su paas day ñëw daam. lépp maa koy def maa koy duma maa koy daan. kattanu suñu borom. duma rëg rëg mari bu ñaa xuppaajam loolu théâtre la. yow li nga wax sax moom mooy lan yow dafal naa guy gi yow nan nga ma mën a ëppee doole. rëg rëg ah am nga combat leer laa lay wax.